lu tàbbi ci. jërëjëf Serigne Saliou. jërëjëf Serigne Saliou. jërëjëf Serigne Saliou. jërëjëfaat Serigne jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg lool te wér. Béthio ñu ngi ñaan sëñ Béthio suñu yaakaar yi tey ëllëg mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ñu ngi bi di ko siyaare. tey ñaan jëmmam ji yàgg fi lool te boole kooku gër di siyaare mbokk taalube yëpp eh, di ndokkeel bu baax a baax nag jëwriñ universel Saliou Samb tey am mbégte lool akuk cat ci tawféex gi ñu sëriñ bi defal ba ñu teewaat am tawféex yi teewaat waxtaanam wu neex wi te bëri njariñ te mu mel ni leeratina neexatina yokkatina sunu xam-xam. ndax ab xam-xam ràññee da ca baax te fexe na ba dimbaleenu ak ràññeetle diggante jëmmi sëriñ bi nga xam ne jëmmi nit la ak mbirum yàlla mi nga xam ni mooy jariñ képp koo xam ne nit nga ak képp koo xam ne mbindeef na te xamal ñu ni yooyu it bu dajewul mboolem luñ la mën a wax ci sëriñ bi it muy jumtukaay buy tax a defaru ngir nga utiliser ko tam ware ba mu defar la

waaye mu feeñal boppam ci lu ñu mën a gis bim bim ci feeñalee boppam it sëñ tuba borom defal ko ci euh, ber ko ci ber boo xam ni moom gis moom amam ak lip lépp benn la te ci biir melokaanu murit saadix yi mu indi boo ko xoolee da ciy leer ndax ki nga xam ni murit la melokaanu murit saadix lañu wax waxuñu melokaani ku bëggul yàlla waxuñu melokaani jullit bi rek dañ ne melokaani ki bëgg yàlla murit mooy ku bëgg yàlla nek di ko wër ba nopi deggu ci wër giñ koy wër nga xamni dem na ba bëgg yalla ba yalla seereel ko ni bëgg nga ma muy dëgg sëñ tubaa koku lañuy wax melokanam té bimu ñu wax melokanam jikko yi mu ñu wax waxul mukk ni jikko yi murid bi da koy am ci man yalla dédé dani da koy am ci kan cheikh yi xam nak yalla lay wut doonub julit dem ba doonub murid ci bir murid mu doon saadix ñuy xaar ay melokanam ñu doon xaar ñu ne day day day toll sangam ci yalla beurep sangam wala day mel melokan sangam ci yalla waye ponki murid saa def bam jeex amul yalla amul yonent bi kenn rek nga ci deg muy cheikh mo lay wan ni kon cheikh du nit ta do nit ndax bu lay yow yalla nga bëgg di tudd ci murid te bëggil yalla da ko dàq ci kudul jëm sun borom neena wa minan nasi may yattaxisu min dunillahi andadan yuxibbunahum ka hubbillahi wala amanu ashaddu lillahi neena mandar gi gëm deug moy ka gëm day bëgg yalla kon wax ni kitam am na kuréel guy ñew ci àddina jo xamni seen melokan li la dañuy bëgg yalla yalla bëgg leen yalla nit ñi bëgg ko rek la bëgg sëñ tubaa ne la ki bëgg yalla te mi dëgg soobu ci yoonu murid nami muy ay melokanam dal mooy mooy day bëgg kan waxul yalla waxul ci bi cheikh yi la wax kon mo lay wone ni cheikh yi mu bëgg muy cheikh bi mën ta doon nit ndax nit def ko bëgg yalla ay penc jëmmi nit nga bëgg yalla je bëggal jëm je te ñom ñaar duñu ñaar kenn do ci deg ngeum ndax bo murit bi weesu ngeum ngëm déggu ci yalla ndax yalla mi nga xam c'est dans sa transcendance boobu murit bi transcender na lool mi ngi ci immanence sunu borom moy lan moy yalla ci feñ ci jëm bi nit sëñam lan nak tënkal ñuko ci ay baat bëgg gëm wuulu ak yaakar sëriñ touba la ko def té woor nañu ni kenn ku bëgg lu dul yalla ëllëg yamal xiyam di ko rek señam la gën a xam ni gëm mom yalla rek lañ koy def yaakar ak wóolu wa ala llahi falyatawakkalil mu'minun in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yahzurkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi kon nag wa ala llahi képp ku gëm yàlla daal yàlla ngay wóolu moom it ngay yaakaar sëñ bi daal jël yëpp dajale ko ci jëmmi sëñ Tuubaa kon moo ñuy won ni kon li nga jàpp mënta doon nit waaye dala feeñoo melokaanu nit loolu nag alxuraan yeewoon nañu ci li ma ci dégg mooy na ci gën a yaatu yi ñu Sëriñ Saaliw defal mooy nangoo gu nangoo lewetal jëmmam ba ci jëmmi doomu aadama ñu mën a teg moom di ko wax suñuy aajo mu di ñu ko fajal waaye loolu nag tawféex giñ ciy am ñun taalube mooy suñu bët suñu bëti bëti nit mooy bët yi sax suñu jëmm dañ koy xool ci jëmmam waaye suñu bëti xol nga xam ne moo mën a gis mbirum yàlla suñu bëti xol nag mooy yëpp mbirum yàlla mi ci moom mooy yëpp lim làmboo kon nga koy topp ci sa xol ci yàlla te sa bët nga di ko xool bëti nit nit kay tax nga mën a yëg ni kii am na lu muy yittewoo li nit di yittewoo nga jug di ko doxal te du yàq dara ci sa xol bi nga xam ni moom yëpp na ni yàlla suñu borom lay àndal yooyu nag ak taalibe bu ko amoon daanaka sax taalibe ñu ngi ñaan sëriñ bi dimbale ñu ko. yàlla bi ko gaa yi laaj waaw yonent bi lan moo tax yàlla romb fi malayka yi di di di la yónnee yow. da yàlla dañu leen neel nee nee leen wa maa manahan naasa an yu'minu idh jaa'ahumul hudaa illaa an qaaluu aba'atha Allaahu basharan rasuulan nit ñangi laaj lu tax yalla bi muy yoni wul malaka ya allah ne len nee leen law kaana fi lardi malaikatun yamshuna inna la nazalna alayhim min as-sama'i malakan rasula su fekkonte ni kaw suuf ay malaka fi ne su may sama leer dama koy def muy malaka waye yeen ñii ay nit ngeen kon duma leen yabalal sama leer te malaka dong la yalla wax leer malaka nak lu for for leer yalla yàlla ko gën a foor sidna jibril sax bu ci neen mënu ko gis képp ku ko gis te yàlla dimbaliwu la sa bët tax kon moo tax jibril buy wàcc ci jëmmi nit buy wàcc ci àddina di wax ak nit ñi day soppeeku yor melokaanu nit yàlla ne leen walaw jaxal naa ko malakan ñu ne mu ne la jaxal naa rajulan su ni daal damay yónni sax malaaka maay soppi jëmmam ku ne xam na ni malaaka ci principe malaaka la jibril ci principe malaaka la waaye dana feeñ ci mbuusum nit feeñ gum ci mbuusum nit nag yàqul dara liggéeyu malaaka bi muy liggéey kon principe bi forme bi ak réalité bi ñaari yoo xam ne mën naa bañ bokk Sëriñ Tuubaa nag bi mu feeñee ci jëmmi doomu aadama feeñal na ca ak jagle koo xam ne mooy ni ko waxee mu leer nañ ñu tubaab kàlla jëmmam lépp day ak leer lépp yàlla la mooy lan fa taabati nafsu wa taabal xalladu sama esprit sama âme ak sama corps nekkatuñu ñett léegi benn lañu réalité suñu borom la waaye nag jëmmi doomu aadama ngay gis kon faaw ngi gis ni jëm la joo xam ni yàlla feeñ ci moom suñ tubaab nag bi mu xamee loolu moo tax mu ne la lu ngeen ànd ànd ànd ak lu ànd bi neex neex ak ak ak lu mu yàgg yàgg suñ tubaab ne bul ko miin moo tax mu ne walaatu saaxibu bila tab jiili fii zamanin këdd bi nga daal jiili bul takkoog moom ba dootoo ko màggal ndax jëmmi nit ki doon kiiraay boo xam ne sa xol dootul gis mbirum yàlla déedéet xam na ni ci neen ak gisam daa am fu mu yam moo tax jëmmam la la feeñoo ci say bët waaye mbiram moom da koo làq ci jëmmam te mbiram moomu nag sa bëti xol moo koy gis bëti xol moo koy yëg looloo tax suñ tubaab nee la walaatu saaxit bu bul moom waaye nag bilaa tab jiili te doo ko màggal kon lan ngay màggal mooy mbirum yàlla mi moo foofa nga koy xoolee bëti bi nga xam ni bëtu baatin la boobu bëti xol la suñ tubaab nee na bul bul bul ko mës a miin ne jamais comme en présence d'un familier sauf en cas de force majeure Sëñ Tuubaa nee na bu jotaay bi yàgg ba nga miin ko miin kàddoom miin yi waxam déedéet ndax mbirum yàlla ne ci moom te bis bu set lay feeñal lu yees sëriñ bi ne obéis aux directives qu'il te donne et empresse-toi de les accomplir même si cela est contraire à ta volonté nee na jëmmi nitam ki léeg-léeg mu doxee noo xam ni sa sam xel dootoo ca gis mbirum yalla da mel ni saa yir gis Sëñ touba nee na donte bokk ak li nga xamone ak li nga bëggoon dawal gaaw te jëfe ko ndax bu kiraay yi muree ko nga xam yalla am jë moo doon def loolu nag dafa dal yonent bi ak sahaba yi yalla da digle bala ngay julli da ngay japp boba tim amul japp rek am ñu dem ci bërëb sangam sayyidatuna aisha di soxna yonent bi da di réeral ab takam bi mu réerale takam ñu ne bërit bëgg ñibi aisha ni sama caq da réer yonent bi ne acca kon nañ ko xolal takam ndax aisha nim jegee yonent bi nga xam ndaw su xonk ci la ko daan woné bëgg ko bëgg ku ne xam waaye sayyidatuna Aysa ne caqam daa réer yeneen bi yëkkati nit ñi ne acce kon nañ daal di seet caqam ñuy seet caq bi di seet caq bi di seet caq bi di seet caq bi ba nit ñi sonn gisuñu caq bi Aysa mi caq bi réer tax yeneen bi arrêté peloton bi ñëpp toog kenn dematul ñëpp nekk ci caqub Aysa rek yeneen bi dem toog fam toog sayyidatuna Aysa ñëw tëdd ci wetam jël boppam bu tedd ba teg ko ci tànk yeneen bi du moins c'est le contraire Sayyidatuna Aïsa toog sallallahu alayhi wa sallam jël boppam bu tedd ba teg ko ci tànki Sayyidatuna Aïsa ñuy seet càq bi ba yàgg ñuy ñu waxtu jullit léegi mu jot te fii ñu nekk ci tund wi l'islam moo indi sart moo indi sariha te sariha mayuñu ñu ñu julli te jàppuñu ba ci yonent bi ñu ne waaw te li ñu fi téye lenn dong la muy caqu kii te yonent bi nee na nañ téye caq bi na nañ seet caq bi faaw caq bi génn keroog boo demee ci sawul yi Seydina Ababacar comme que wuy euh, am na ab sañ ci moom Aïcha nee ñëw na jàpp ci sama mbagg ba xaw ma yëngal ne ma dama ni yeneen tubéen ngi moom day fonk na la respecté la waaye nag sa caq bii bu mu ñu fi téye saxaba jox ko Ababacar ne ko yaay moom. Seydatuna Aïcha nee na Ababacar xaw na maa dóor keroog ngir lan ngir bañ waxtu julli jot te yeneen bi du fi euh, jàpp te bañ it yeneen bi faat waxtu bi. bu dan jamono ji la nag danga naa na sa waay dal da nopp soxna sa rek way bëgg na way waxtu julli waa ngi jot xol suñu borom mo diglé julli yef yi bala ngay julli faaw nga ci ko soxna si war naa tax nak tay mu melni kuy waxtu bañ ba waxtu wi jage nit ñi ñëw ci yonent bi ne ko waxtu wi kat kon nak jage na te ñi ngi sét caq bi keroog yàlla daani cas ab ay jox ko jibril ne ko nee bu nu fi te amuñu ndox mun jappé bis ni tay defal na leen tim loolu moy fat falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiban tamsahu bi wujuhikum wa kana allahu aliman hakima alquran keroog le tiim wàcc ngir lan ngir téye yerente bi téye nit ñi ngir seet taxum sayyiduna aisha mu don nit mu don mbir mo xamni boko don ko ci xew te nga ne yonent bi da bëgg soxla ci motax tax d'ailleurs sax dem na tëdd ci tànk ya ma ngay neraw te yalla mo diglé yalla mi diglé won topp bëgg-bëgg yerente bi taxna mo wacc tim tiim lañu la ñuy ba ba ñi ñuy gis caq ba kon mbirum nit ki jëmmi nit ki ak mbirum yàlla mi ñaar yu bokkul la jëmmi nit ki nag du réerub yàlla déedéet muy leeram muy kooram lépp lu mu def yàlla sëriñ abdulaat nag daf ñu ko wax sëñ beeco mu ne ko mbàkke mu ne ko sa xol bi ku dul sëriñ tumaa neew ci sëñ beeco mu ne ko mbàkke mu ne ko sa deret ji sëriñ tumaa ci daw waaye sa cër yit dañ cee mooñaale sëriñ tumaa kon kooka jag lay sëriñ tumaa lay wax sëñ saaliw ne ko sa mbir daa lëkkaloo mbirum sëriñ tumaa yow sax def naa foo nekkati muy Touba lii nag ay mbubbi Sëñ Touba la jagleel nañ la kon kooka boo génnee Sëñ Touba ci moom waaw kon day Serigne Touba loolu la Serigne Abdoulaye da ko wax Serigne ko yaay man maay yow kon muy Sëñ Touba tey Sëñ wax ko benn wax dugal ci ñetti wax ñetti jëmm benn wax ñetti jëmm sëñ Béthio defoo waxoo kon seex bi la wax loo def ku ko def mu ne maa ko def man Sëñ Saliou ñaari jëmm ñëw na. loo wax it man sëñ Saliou maa ko wax xanaa la ca yelloon mooy bakken nekku ca àddina nekku ca man mi ko def man la man sëñ Saliou waaye dañ ko defoo waxoo yow Cheikh Béthio loo def man sëñ Saliou maa ko def loo wax it man sëñ Saliou maa ko wax waaye bakken newu ca àddina nekku ca daal di joxañaat beneen jëmm daal di lépp Serigne Touba kon sunu taalibe kon niñ sëñ Saliou Samb dimbale tey mooy ñu ràññetle jëmmi nitam kii mooy jëmmi nit ki nga xam ne da lay moom jëmmi nit ki nga xam ne saa su ñëwee mu tàpp sa loxo waaye na yëg ni jëmmi nitam koo kii bët bi muy xoolee te bët boobu yi jariñ taalibe bi nekk Europe bi nekk Chine ak bi nekk Sénégal moo ci am moo tax suñ tubaab dañuy fan soloto xut bi saa soo jëfee jëfu cofeel së sëriñ xool bët boo xam ni réel masaya wala xoolaa bët boo xam ni dalay dalay yokk ay daraja waaye al masaya dalay yokki ne taalibe bi bi ko jëfe Chine ak bi ko jëfe ak bi ko jëfe Sénégal ak foo ko mën a jëfe ca saasa fan soloto xut bi day daw bu doon bëti jëmm ji la kon kim jàkkaarloo rek lay xool waaye bëtam bi bi nga xam ne nag fépp fu ay jëfee ca saase njariñ la ma ngay tukkee ca moom te di la si loola amul tënk dara tënk ko ci àddina ñaar yooyu nag bu ko ab taalibe ràññeewul dootul mën a xam ne ndeke cheikh yi bëti xool bi ñu koy xoolee mooy wutewul ak yàlla waaye sa bëti jëmm nag da ngay gis ki sox ki nga xam ne danga koy siyaaree ay yére mu di ko sol ki nga xam ne danga koy siyaaree montre mu di ko takk ki nga xam da ngay xol diw diw njabotam ndax bi wacc ci jëmmi doomu aadama da jaar ci li nga xam loi ak règle yi nga xam yalla du ko tëral ci adina ñaar yoy nak defena talu bi bu ko ragneewul sax talu bi ta rafet ci Serigne sallu Samb waxtana mo am solo bi tax na tey fëggaat na ci suñu bop ñun ñepp ñu mëna ragnat le kon ndekete ne kon tënkuwul ci jëmm mom mom mu nga fepp à la fois malakal nooti képp ku faatu mo la ray te da ngay gis ay junni nit yuy faato ndo de façon nak très éparpillé kenn ku ci nek mo te ci sa deflante ak yow lamuy deflante ak yow te boo dellu faatoon ci adina di nga wat ni ci nga gis keroog sa morom wat ko sa morom wat ko ci sen sa te ko ko am malaka te yalla sak malaka serigne touba fete kaw loolu kon nak jëmmam ji dana sa transcendance mi ngi waye imana sam immanasam moy yirna de jim feeñal ci ñun koka moy tuddu sun tur ñu bëgg motax tax ji ñi ngi ñaan mu yàgg fi loolu te and geur ba tax na suñ sallu sàmb fofu lañuy ñuy wàccee sunu kaddu te di la ñaanal waxtaan wu am solo wii ñun ñu jariñoo njariñ li ndax ëmb na xam-xam te xóot na tuwakkal la ñu ngi ñaan nga gën koo mën te Serigne Saliou dolli sax xam-xam te dolli it suñu dégg ak sunu mën a taataan xam-xam bi te dimbil dimbali ñu bañ jariñoo ko ngir ñu gën a mën a tegu ci yoonu defam foofu la ñuy wàcce sunu kàddu tey ñaan sëñ Béthio jàmm Serigne Saliou mu yàq fi loolu te ànd na wér